bi maa ko bind bi ma euh, seetloo ne ñu bari maanaam ay gëstukat waaye gendarme ne man walla ay simple citoyen dañ ñi daan dañ doon ñëw ci man di ma laaj ci gendarmerie waaye boo ko seetloo daanaka ginnaaw Pierre Rosière mi bindu tuuti ci gendarmerie daanaka amuñu ay mbind ci gendarmerie looloo tax ma ne pour ñu jox élèves yi nga xamante ne dañu nekk ci ñun di jàng ak euh, ñi nga xamante ne ne dañuy gëstu ci gendarmerie ñu jox leen loo xamante ne ni euh, mbind la moo xamante ne ni lu wér lay doon dinañ ci mën a sukkandiku pour euh, li ñuy wut ci gendarmerie ñu xam ko Euh, muy colonel Sidi Sadi mi bind téere boobu kii nag professeur am la woon bu teewoon itam ca ndaje ma Serigne jóob lañu koy wax euh, dellu si na ci solo ak euh, li nga xam ni moom mooy li fës te am njëriñ lool ci téere boobu nga xam ni ndongom bi fësal na ko ñu déglu Serigne jóob ba tey ak Daniel Diouf. livre bi mu bind nag tey livre bu am solo la ndax xam nga gendarmerie gendarme ñun ñëpp miin nañu gendarme ndax ñu ak gendarme yi la bis bu nekk. waaye wóoru ma ni ñun ñëpp xam nañu bu baax a baax a baax gendarmerie livre bi nag daf ñu jàngal gendarmerie depuis 1843 bu ma juumul ci date bi ba léegi waaye surtout lan mooy wàllu gendarmerie ci réew mu ñuy tabax ak réew moo xam ni bu ñu ko tabaxee ba noppi dañoo war a farlu ci réew mi jaar ci yoon ba ku nekk lii sa àq ak sa yelleef nga mën ko am ba mu mat sëkk te bokk na ci nag ak yi ëpp solo mooy nit ku nekk ñu bañ laa noot maanaam kilo ëpp doole bañ laa duma kilo ëpp doole bañ a jël sa alal te loolu ki nga xam ni moo ci war a taxaw ba mu mat sëkk bis bu nekk ci sunu biir gendarmerie la